loo xam ne damaa bëgg ñu waxtaane ko léegi ndax sëñ Ibrahima bi ñu murid saalix la te ñëpp xam nañu sëñ Tuubaa dong ko ñor fu mu mu ngi liggéey sëñ Tuubaa nëgë ni sii daaw fii ak yi diñ ko joxoon yëpp yëpp moom la tàmbalee liggéey bi sëñ Abdou Lahad rek ànd ko murid yëpp ba liggéey ba fi mu ñuy cati na lool sëñ am suñu Mbàkke kenn ku ne xam ne ni jëm ni sëñ Tuubaa la taxaw ñëw na ko fan yi fa la fanaan ba mu yegsee lam ko wax mooy murid yëpp am nañ gàcc tàmbalee ko sama jëm ndax liggéey bi ñëw ba toll fii te defaguma ci sama dërëm loolee rek soññee la may ñaan ci barke borom Tuubaa képp koo xam fekk nga sëñ Ibra Gueye nii benn dërëm donte benn na nga jox ko ko ngir liggéey boobee maa ngi ñaan yàlla na dërëm boobu doon sa seede yow ma xeex bi ma rek ko wax su di lay sela sela jërëjëf. day am nii rek